ci pour homme ak pour femme. waaw pour tarif yi euh, pour euh, séance par jour pour góor inscription bi 25000 chaque mois 20000 pour jigéen inscription bi 20000 chaque mois 15000. asalaamaaleykum chers euh, comme ni ñu leen ko diggee woon ci bi passé dañ ñëwoon toujours dañuy resté amitié fitness fii nga xamante ni Saint-Lazare juste à côté Etika. donc fii dañ leen di toujours ñu ànd ak coach ci Fitness yi maa ngi fii ak coach yu Codé maa ngi lay ziar. ziar coach maa ngi yow ko ëpp doole. non yaa ma ëpp doole. ah yeah. nañ la grand. waaw mais tey comme ni ngeen ñu ko doon laajee ci émission yi. renforcement partie du corps boo wax tey coach Bara ak coach Codé ñoo ñu koy may coach bu ngeen ñuy may tey. tey dañuy def leen programme boo xam ne full body lay doon full body c'est-à-dire l'ensemble du corps muscle yëpp la ñuy travailler léegi suñu travail muscle yëpp nag programme la ñuy teg. programme bi comment dañuy def deux muscles par deux muscles la ñuy travaillé. deux muscles deux deux machines de dos deux machines de triceps deux machines de pec deux machines d'épaule et deux machines de jambe. donc sama gars yi man du ma fi sax taxawaal. bëri da di bàyyi coach yi. Uh-huh. coach programme dañ ci ànd ak coach Bara incha allah foo koo képp koo xam ne këram amul yenn matériel yi mun nañ si mën nañ mën nañ travailler avec les moyens du bord c'est-à-dire sa kër moroom matériel bu mu fa mun nga si musculation que tay corona bi moo ngi fii gars yi dina ne rester à la maison moo tax ñu indi benn programme boo xam ne ni mu ngi mu nga si travailler avec les moyens du bord léegi baaro moom dina ci yor ay haltères ma dinaa yor avec les moyens du bord comme ñaari bouteilles yoo xam ne si rempli d'eau léegi nag si si si lii bi laay si si si si bouteilles yi laay travailler moom moo yor haltères képp koo xam ne sa kër tamit yaa ngi ay haltères on va travailler avec les haltères bisimilah baax na mën nañu ko tànn pour allez coach incha allah léegi dañuy commencer par les muscles du dos par les muscles du dos on toujours concentré descente contrôlée voilà monte explosif contrôlez la descente deux voilà Allez, toujours descendre contrôlée. Voilà, un quart. une. 6. Allez. 7. On y va. Toujours descendre contrôlée. Montez toujours explosif. 9. Le soin. Et 10. Voilà. Vous respirez. D'accord. Vous pouvez faire cet exercice 4 à 3 fois. Ça dépend de vous. On va faire le rowing. On enchaîne directement. képp koo xam ne sa kër yoroo ay haltères képp koo xam ne sa kër yoroo ay haltères mu nga mu nga travailler à travers comme exemple bouteille d'eau bi léegi Bara tu vas. voilà suivez bien. si vous avez des des c'est encore mieux. c'est bon toujours là.

On récupère un peu, 10 secondes. On enchaîne directement. Ok, on, on va biceps. faire biceps, barre. Cœur les concentré. Ok. On enchaîne directement. Une. Allez. Deux, trois. Une. Une. Voilà. Toujours descendre, contrôler. Toujours descendre, contrôler. Voilà. 4. Merci Marie, coach. Marie Concentré. 5. Voilà, pas d'extension complète. 6. Merci, on y va. 5. Voilà. 8. Hum. Allez. 9. Exactly. Omar. Et 10. Good voilà. job. Voilà. On va essayer de faire triceps. Allez. Faut faire. Là. Une. Deux. Trois. Attends. Une. Deux. Trois. Quatre. 5. merci. 6. toujours descente contrôlée. 7 grand lañ ci ziar nañ la. 8. allez on y va encore 2. 9. encore une. et 10. voilà c'est bon. on change de bras. allez. voilà. 2. 3 go. 1. voilà. 2. toujours descente contrôlée. 3. voilà on y va. 4. merci. 5, allez les gars, 6, on y va, 7, encore 2, 8, encore une, 9, last one, et 10, good Ok, merci coach. On a travaillé. C'est fini pour les triceps. Les triceps, on va attaquer, attaquer les Si vous avez des tapis chez vous, c'est très simple. Ce Voilà. Vas-y, vas-y, c'est bon. dafa ko ñëw. waaw non non demal demal horizontal. ok demal vertical. ok une deux trois. ca kele lor ñu dem.

une deux merci trois allez les gars yéen ñi ñuy suivre seen terrain vous pouvez répéter la même chose autant de fois que vous voulez Ndeye Fama ak Ndiogu ak Mame Diarra vous pouvez faire la même chose Grand Amori yaa ngi ci suis et tu fais la même chose. Oui. Encore deux coach. Neuf. Voilà, encore une. Et good job. OK. On va travailler les épaules maintenant. Directement avec les épaules. Avec les épaules. Bon, ceux qui ont 16 pour le table, mon travailler encore les épaules. noo ko mënta amee baax na exemple am naa table ni wala seize toog naa bu baax léegi effort la ñuy def dañuy def effort al nord fermé bien fermé ensuite suñu paree def élévation antérieure c'est bon hein une deux trois go on y va on ferme toujours descente contrôlée c'est pour travailler les épaules de trois deltoïdes l'avant, médiane, 3 et deux touches postérieures. Encore. Voilà. Ça, c'est d'une pierre. 4. Plusieurs coups en même temps, les Voilà, toujours contrôlé. Voilà. 6, Ibrahima, Ibrahima. Merci, les Allez. 7, c'est galère de quoi ici, ah, On y va. 8, William, Ibrahima. Merci, coach. Encore. 9, Merci, on et 10. Voilà. Okay. Omar, on va faire l'élévation antérieure. Antérieure, les Antérieure. encore. Une, deux, trois, go. Une. Merci. Deux. Allez, les Trois. Robert. Merci. Quatre. Encore. Allez. Cinq. Encore. Voilà, Sept. Encore. Huit. Encore. encore deux. Neuf. Encore. La soine. et 10. Voilà. OK. On va terminer. On va se directement avec les jambes. On va travailler les jambes. On va faire les squats et Voilà. On va faire les on va écarter les jambes. OK, Modem des épaules. Modem Touré sora ñu dem. Allez. Une, deux, trois, go, squat. Une. Deux, encore ñu dem. trois coach si ziar naa la. quatre di bëggee Momo. cinq voilà on enchaîne directement avec les fentes. ñu dem def vous pouvez faire fente simple. et dynamique en même temps. deux trois go. allez vous pouvez rester sur place aussi. juste là. voilà juste là. 4 encore. 10 et après vous changez de jambe. 5 Exactement. encore. 6 voilà. 7 Moustapha. 8 ñu dem. 9 last one. et le même circuit deux à trois fois. après on change vous avez déjà. réchauffer tout votre corps. full euh, mhm. euh, mhm. sa kër bu fekkee yoroo bouteille yi. Mhm. leneen la man des fois gis ñoo xam ne dañu yor seen saagu doom yi. jàngi école di ko utiliser est-ce si wax. lépp loo waaw lépp loo yor comme matériel rek mu ngi si travailler say muscles. ok ça dépend nag si li nga yor matériel bu nga yor su nekkee yow yoroo bouteille d'eau mu nga wut ñaari loo xam ne nii attan nga ko bant wala loo xam ne c'est tenable nga def say exercice. mais bu fekkee man 10 litres yi laa gën a attan. waaw voilà différence bi koo xam ne ni. dafa dafa am dafa am kattan koo xam ne yàlla may na ko kattan mun mun na mun na jël plus. plus lu gën a lourd li mën na jël lu gën en fonction de ses performances. comme nous qui avons l'habitude de travailler mm-hmm. avec la mm-hmm. musculation on n'a pas de problème avec 10 mm-hmm. kilos 15 kilos de suite vous pouvez faire la même chose donc li ñu bëggoon mooy kenn ku nekk sa biir am mu jege la mu nekk avec alors chers internautes comme ni leen euh, continuer partie musculation bi ñuy dem ak euh, li donc coach lan la ñu mën def ak lii. waaw bii bande élastique bi mën nañu def différentes exercices. mais mën nga ñu may exercice ay exercices yoo xamante ne ki nekk këram yor bande élastique mën na ci def. bon par exemple. ñëwal nii par exemple mën nañu si def biceps. exemple maa ngi mhm. allez. voilà def ko si base dama lay def explication bi mu ngi def curl concentré. Mhm. voilà xoolal mu ngi travail big biceps. gis nga toujours contrôler. deux reste en haut au moins deux secondes. descente contrôlée jamais d' extension complète et on monte je pense que yéen a ngi koy gis. exactement mën na def exercice biceps jàpp bu baax biceps la mais nag bi ko bi ngay yëkkati mi ngi xaw a lox man ça veut dire que euh, bande élastique bu nekk ak kii bu mu tolloo voilà selon voilà selon kii bu mu tolloo en même temps mënuñ si travail épaules yi tamit en même temps mu nga def exemple mu ngi def exercice trapèze trapèze xoolal tirage une exactly ok donc si gannaaw bi la même chose delta postérieur ak médiane bi. ok laal delta post delta postérieur laal delta médiane. voilà kenn coach defal la position bi ñu xool voilà vous voyez bien delta yi postérieur yaa ngi jóg. deux vous voyez médiane baa ngi yaa ngi donc tu fais ça au moins douze. nga échauffement bu normal. da ngay laal aussi trapèze. merci voilà 6. donc mën si travailler front squat. squat tamit mën nañu ko si travailler front squat. exemple. voilà fii. tu vois da ngay laal quadriceps da ngay laal fessier da ngay laal ischio jambier voilà on peut faire aussi d'une pierre deux coups okay. après squat et on pompe en haut voilà oh. descend encore squat pompe en haut travail voilà descend encore une fois exactement donc c' est des exercices très simples. en même temps mën nga tra continuer travailler. voilà élastique yi aussi dafa am ay poids en fonction de sa sa puissance ak sa force. lu corps bi élastique bi gën gën yokk. très bien voilà les gars donc euh, chers internautes duñ leen parce que lii am na solo j' espère que dinañ dellu si amitié fitness. incha allah pour euh, juste def ay musculation carrément pure et dure ak les coachs avec les machines encore. Mm-hmm. parce que nit ñi ñu ngi koy laaj renforcement. am na ñoo xam ne am nañ seen kër matériel on va les aider à faire les exercices qu'il faut avec les coachs coach lan ngeen di tëjee. toujours finir avec des push-ups toujours finir avec des pompes les gars le maximum de pompes possible kenn ku nekk na demal boppam le maximum de pompes possible. juste ça. bon li may tëjee mooy di nuyu yenn personnes yoo xam ne moom suñu bëggee musculation ça à travers eux. Ah. ku si grand lengs. moom moom si beneen salle maa ngi koy bëggee di ko ziar. di wax ni ñi puisque corona bi. dugg na si réew bi ñu ngi ñaan yàlla mu gaaw si génn di wax nit ku nekk mu respecté consignes yi ñuy wax moo ñu toog suñu kër yi. lii ñu def c' est que pour nit ñu pousser leen si sport pour ñu continuer di def seen kër sport yi. léegi si biir def sa kër sport jox nit la les moyens du bord pour nga def si sport. est-ce que yaa ngi loolu rek la ñuy tëjee di ñaan yàlla yàlla teel fi gën a faire bi di la bëggee Mansour di bëggee Absa. sama xarit la sama waay la. jaajëfal de jaajëfal leen bu baax a baax coach ni mu ko waxee de bord vont nous de faire du sport gars amul toog ci kër yi confinement la dëgg la dañuy toog mais du ñu toog di seetaan télé wala ñuy toog rek di lekk nañu entraîné y a les moyens de bord ku ci soxla matériel boo ci defee si ñuy di la matériel de service gratuitement merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. coach jaajëf waay.